El Hadji Ahmed Aidara réew maa nga jëm tey ca tribunal ba de tribunal yéene kaay ne ubbi te atew ma ne la tey la nag bañ ko daxee ñaari yoon ma ne la Sénégal gé bi su tey xaar maa la ko wax ma ne Khalifa Sall day ah ca weeruk mars 2017 day lañ ko tëjoon ca kaso ba ba léegi ni ne jàpp ne Khalifa Sall mi lañ toppee moo ko def ñenn ñi tamit jàpp la wax la tax na ba ay avocat am day daal dañuy taxaw tey ngir daal di koy setal kon ba mel ni galaas ma ne ay avocat nag ay kilifa yu fort daal di ñëw nag nekkoon ay seede de ci coow lii eh, maa la ko wax te jàppal nañ ne ca gën a bëri ñu bëree bëri day ci nguuru Macky Sall gi la ñu ne la ilaha illallah ma ne la Moustapha Niass day seede la Ousmane Tanor Dieng seede la Aminata Tall seede la Idrissa Seck day seede la ñaar ñi nga xam ne kon ñoom lañ dénk suñu xaalis bi lay Amadou Ba Birima Mangara ay seede lañu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon maire Mamadou Diop ak Papa Diop day ay seede lañu Mamadou nga xam ne moo nekk premier ministre Abdou Diouf day seede la seede la termine yéene waaye nag day Amadou Ba ak Birima Mangara waaw Moustapha Niass ak Ousmane Tanor Dieng ak alliés yi nga xam ne kon dañoo ànd ak président Macky Sall day njortees nañ ne duñ ñëw ca tribunal ba de maar day taali xanaa président de la république kon Macky Sall daal di cay d'accord way la tribunal bi ci boppam kon daal di leen tëkk ne leen di ngeen ñëw di kon nekk seede ca ate ba ate boobe réew mi na mbiri sérieux yi nag ñu a nda mbooloo ma ñëw na kon ca ba na mbooloo ma ñëw te ñoom nag tey la ñu gën a taxaw tey ngir Khalifa Sall ñu génnee ko ci kaso bi waaye tamit xeex ngir wàllum justice bi nga xam ne kon dañu ko war a atte day def kon ca métier ma en waaju dal la de ànd ak fula fay de biir sax ak dëgër la ko si yéene kaay ne maa ngi koo taxaw Sénégal day waaw dañuy am benn candidat candidat wala yu bari waa man ko yooyee waaw nee nañu gis nga loolu wax jee ñorul tolloo guñ la Macky Sall tollu day nu mu def ba am deuxième mandat l'observateur ne moo taxit ma ngay dajale waa day turubam yo maa la ko wax yónni ay mission fu ne wutali kon 2019 ma ne la gis nga mission yooyee waaw dana mi tee defar de impossible laa la wax ah maa la ko wax parce Sall kat waa këram fitna xiiroo ngaayoo gars yi ma ne xoolal ci diwaanu waaw ma ne la waxula benn leader APR ah. waaw parce que ñaari clan fa am ka Mariama Sarr ministre ak Mohamed Ndiaye Rahma ak alliés yi dañoo taxawee ne Diène Farba Sarr Awa Gueye Baba Ndiaye Mimi Touré ak maître Nafissatou Diop Cissé taxawee ne ca diwaanu Mbour ga dégg nañ waxu président de waaye ña xaar ca Thiès la ah, too fa dal dañoo yorul ay punkal yoo xam ne kon mën nañoo jàkkaarloo ak la fa ne maanaam ga Idrissa Seck ak Thierno Alassane saafara bu jur jangoro la la muy créé ci ay problème mo ëpp fuuf la mëna liggéey ah ah. sëñ ne waaw ca ki day ak ci sangal kam waaw mané ne la échec total dara doxu fa la doxul kay mooy candidature u PDS ka terminer kay né nees def na ba Karim Wade delu sat ci bi réew mi day Abdoulaye Wade ak Omar Sarr waaw mané nga ca Qatar ñew nga ca Qatar day même bu dé ci Dakar sa gouvernement bi waaw d'accordul ben yoon Karim Wade delu sat ci bi réew mi eh way Samba motax ma Macky Sall ak wa këram day la ñuy xupee ak di côté télé Karim Wade mi ne mooy ndàmpaay la xam nga dañ ko ne bu dé gracier nañ la mom nga sa bop waaye ndam waaye li nga xam ne moom nga a nguur gi ko fay wa illaa ñu yor kon ngànnaay ngànnaay yaa ngay tàkk ca Casamance de libération kaay ne ma ne leen jàpp ba léegi ni leen tey enquête yéene kaay na mbir mi kay tar na ca ñoom ne ña ñu faate ba faagee waaw tar na allune teen ci tribune yéene kaay ah, nee na nañ leen moytu nag wut jàmm ja mujjee soppeeku guerre mar d'Italie ay léegi la allune l'observateur ne buro amatu mulu sané waaw ba ñu defee autopsie ba day ndekete benn produit ci boppam kon la waaj a nooy la nekkoon ca biir ba yàqu mu faatu moo tax gendarmerie ba day ma ngay xool nag ba xam dañ koo posone way ilaa daa xaru Pierre Atapa Goudiaby ba mu jàkkaarloo ak gendarme ya waaw nee na mësul wax ne xam nañu santaane lii Atepa waxoo ko fi woon ne xam nga leen Atepa ne déedéet musuma koo wax la ñu a wax kay enquête yéene kay nee na tolluwaay réew mi nee na Macky Sall nguuram gi la day il faut ñu góor biir dëgg ka ngir mën a génn nag ci lii gereew yaa ngi mel ni tulleeg male front social bi maa la ko wax Macky Sall war naa jàkkaarloo tamit day ak dossier Casamance Macky Sall nguuram war ñoo jàkkaarloo ak ngeen nag njaayam gerte gi Macky Sall nguuram gi war nañoo jàkkaarloo dialogue politique bi nga xam ne dama tul dikkatul jëy lii Sall war naa jàkkaarloo ak magistrat yi ne seen indépendance la ñu bëgg Sud Quotidien ne wàllum dialogue politique ba day société civile ba mujj nañ caa dugg ngir mu dem ka demoon ca prestation serment bu George Weah Le Quotidien yéene kaay nee na Alpha Condé la waaye président Guinée daa mujj gedd daa tardé ba noppi bëgg a toog ca kanam Vox Populi ne diggante président Macky Sall ak Idrissa Seck mbaadu bii mooy nekk nag seen guerre yu mujj ñoom ñaar combat dong moo fi mën a jàkkaarloo nag kii di président Macky maa la ko wax professeur Moussa Diaw ne dana miti ci Idrissa de xanaa mu dajale nag ay parti bëree bëri Mbacke Seck ne nañ leen wax yàlla tax opposant bi gën a légitime président Macky Idrissa Seck la assemblée nationale Macky bii yëngu na Walf Fadjri ne daa yàlla de booy dugg assemblée lañ lay jox ak oto Moustapha Niasse yi waaw ma ne lay indi ci assemblée nationale werante gu tar loolu amul booy benn ñaar ne président Moustapha Niass juróomi oto kon lay doxandoo loolu amul le Sonko waxoon tamit ca impôt day Birame Touré noo ne loolu amul <laughs> alaaji am naak amul député ñu war a góorgóorlu lañu te wàññi tàccu geeg tée sante geeg nelaw gi boo paree ma ne la alaaji tëjal